sama gay tontu du forox de tam ben Ndiaye secrétaire général par intérim PS tontu na Serigne Mbaye Thiam Aminata Mbengue Ndiaye xamuloo na Serigne Mbaye cham ni ci mbir mu succession Feu Tanor jan mang lay xamal li PS dal, am ben problème waxtu buñu tollu dal man may secrétaire général parti bi élection secrétaire général bu bees après faatu suñu EG Tanor Dieng nekkul ci sama agenda man mii may assurer intérim nañu wax wax bu jotee ci mbirum euh, secrétaire général bu bees PS nag dama bëgg nga xam ne ki PS dafa am réglement intérieur ak stati man mii Aminata Mbengue Ndiaye mënuma nekk responsable parti bi te di fi nekk di créer ay wax kasaw-kasaw ci ay question yoo xam ne am ñu benn solo